jërëjëf ci laaj boobu ci rapport bi nga def diggante euh, existence maanaam am am ñu am ay bërëbu dencukaay yu doy ak njëg li euh, pour njëkkee ci importateur yooyu ngay wax xam nga li fa am système fii ci réew mi bu ñuy wax système de régulation mm-hmm. euh, ci produit horticole yi ak yeneen sax mais comme produit horticole lëjum yeeg yooyu dañuy waxtaanee tey dafa am système de régulation bu koy def à travers le ministère du commerce. Mm-hmm. te agence bu ñuy wax agence de régulation des marché mm-hmm. ma fàttali ne wuute naag ARMP woon marché publique bokkul bii agence de régulation des marché la tudd moom xool njënd njëgu euh, euh, yi ñuy xewloo ci réew mi. Euh, selon mu jógee bitim réew wala ci réew mi fu njig li war a yem loolu lay saytu agent de régulation boobu euh, bu soble wala pomme de terre ñoree Sénégal euh, ci ñuy waxtaan ba juboo ak acteurs yi yooyu dootuñu maye mu jógee bitim réew dañuy appliqué li ñuy wax ci tubaab gel ñi naan dañuy dakkal bateau bi mhm. ci ci wàllu maanaam dañuy tere ku fi indi ci diir léegi dinay faral nekk di bu gudd sax parce que ci soble ci pomme de terre ñu ngi ci dix mois mine ci soble ñu ngi ci entre huit mois et demi neuf mois solon les années mais en moyenne ñu ngi autour de neuf mois yoo xam ne dañ naan diir bi kenn du fi dugal soble parce que soble am na fi donc kon importateur yooyu bu ñu indee soble wala pomme de terre rek day fekk ñu may leen ko te day fekk it marché bi li fi ne disponible doyatul te bu ñoom bu ñu indiwul dina am manque pomme de terre wala soble te loolu moo gën a jafee gérer sax que njëg lu seer la. xam nga loolu xalaatuñ ko nga toog waxtu ñu ne pomme de terre amu fi soble amu fi kon système régulation boobu ci xool disponibilité yi au niveau national ak besoin yi ñaar yooyu lay confronter tout le temps. tout le temps li Sénégalais yi soxla par weer te mu nekk par exemple vingt cinq mille tonnes euh, de de de d'oignon à trente mille bu dee ci tabaski wala korité wala huit à dix mille ci. pomme de terre bu dee euh, par bu dee gis nañ ne li fi ne mënul satisfaire loolu dañuy daal di fexe lu doy dikk ñu am lu ñu may mu jógee bitim réew donc bu wax ne importateurs yooyu loolu war naa mën a dakk bés bu ñu réglé woon problème infrastructure yi loolu di dina dakk mm-hmm. ndax da dul amati lay bu ñu def ko wala boog dina néew lool li tax dina neew lool day fekk mu nekk une part congrue ci benn catégorie de marché haut de gamme par exemple. Mhm. Euh, Babacar ne moom bon man soble bu mel nangam laa am te amul Sénégal ma bëgg ngeen indil ma ko man dinaa ko jënd parce que am naa ay moyens mu ngi mel ni ceeb tey rek. tey boo mhm. béyoon lu doy ci ceeb it mun a wax ne benn pepp ceeb doo di fi dugg ndax njënd ak njaay. lu lu lu lu nit lu ñu fiixal nit ki la. Mhm. kon mën nga fee dugal mais du dootu doog kante yoo nga xam ne. day fëq poosu réew mi foofu laay waxee. kon. importation massive bi day daal di jeex. kon bu ama régulation boobu mooy gérer kaaw importateurs yi. Hmm. wax nga dëgg nag ci infrastructure yi dafa manqué woon manqué na sax ba léegi mais dama bëgg fàttali jéego yu am solo yi ci am at yi passé hmm. gis ngeen marché d'intérêt national. Hmm. ba fi mu nekk nii ah, fan yi rek reprendre nañu opération bu am solo dina fa am ci dencukaay yu fa ne. xëy na doyul pour réew mépp nag. mais dina gérer déjà pour région de dakaar mu jóge ci ñaay ak feneen ñëw ci buntu ndakaaru jam ñaaju ñu am fu ñu ko fa def fu sedd fu muy fu ñu koy denc waa ndakaaru mun ko faa fekki jënd ko ci prix bu ñu homologué bu ñu xam bu dul xaabaabal yóbbu ko seen kër loolu wàññiwul dara leen sax dégg naa boole nañ ci ay xar ca wet ga may nañ waa élevage ñu indi fa xar kon xam nga daanaka ndugg yi ñu bëri mën nañ ko def yi jam ñaaju